وادفع الوباء والبلايا كلها هلاوتي شربها واكلها واجعل حليفنا حليفنا امنا وكن بيدي كفيلا دامنا واجعل خير من الجاهلين أسف وبها عن الأباء salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu man la Cheikh Fatma Mbacké mu Serigne Moustapha Bassirou euh, bokki jullit yi bokki taalibe yi xam ngeen ne euh, tawat jii di korona virus bi mu duggee ci réew mi ca njalbeen rek la ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha am taxawaay bu rëy boo xam ne euh, taxawaay la boo xam ne ñépp ñu ngi koy rafetlu wala ñëpp war nañ ko rafetlu muy da cee joxe ndigal euh, wax ñu dellu ci sunu borom tuub joxe ay ñaan yoo xam ne mi ngi ko tibbe ci xasaayitu cheikhul xadim yi waaye wax itam ne nañu tënku ci li docteur yi digle ci anamuk aaru waaye yamu ci dafa jël alam ju bari def ci ngir dimbalee ko réew mi nga xam ne du yam ci taalibe yi du yem ci jullit ñi waaye waa réew mi yépp la mu joxe ci ñoom la jëm euh, te yamu ci muy jël alalam di ko def itam ci daare ji di leen ko dimbalee ci jamono ju xat ak ju metti ji ñu nekk ak jëf yu mel noonu yoo xam ne xëy na sax xamuñ ko kon taxawaayam bu rafet boobu moo tax itam kuréel yi nga xam ne ñoo ngi yëngatu ci yoon wi yoonu Cheikhul Khadim wi rawatina fii ci Touba di kuréel yoo xam ne ndigalul sëriñ bi rek lañuy déglu liggéeyal sëriñ bi rek ci lañu nekk kenn ku ne am waar woo cay bay lu mel ne daayira muxadimatul xidma nekk ci jumaay Touba ji ku ne gis na taxawaay yi ñu ci taxaw euh, Touba ca kanam euh, raabita bi jiite bi bi taxaw daare yi euh, imaam yi ak yeneen kuréel ak yeneen kuréel ñoom ñëpp taxawaayu sëriñ bi tax ñoomit ñu jóg taxaw ngir nekk ci wetam di ko jàppale ci lii muy liggéey ngir xeex euh, coronavirus bi ak xeex crise bi ci anamug nag euh, def campagne de sensibilisation fàttalante ak suñ bokki taalibe yi ndigalu sëriñ bi fàttali leen ndigalul sëriñ bi jëm ci dellu ci yàlla jëm ci tuub waaye jëm ci dimbalante te yàlla tax ndax jamonoy solidarité lañ nekk ndax su metti metti amee rek jullit ñi taalibe yi dañoo war a dimbalante te yàlla tax te sëriñ bi loolu la digle waaye itam nag fàttalante ndigalul sëriñ bi li jëm ci ñu topp li ñu docteur yi wax ci anamuk moytu ndax jàpp nañ ne kat moytu aaru ku ko def fexe ba yow doo virus bi du la wàll waaye fexe ba doo wàll virus bi itam fexe ba virus bi du law jaar ci yow loolu ku ko def jàpp nañ ne yaa ngi liggéeyal Sëriñ Tuubaa liggéey bu rëy rëy rëy rawatina nag ku ko def ci dëkkam bii di Touba def campagne de sensibilisation ñu war ñu koy dawal ci rajo yi di ko dawal ci télé yi ci réseau sociaux yi ngir rek fàttalante ak bokki taalibe ak bokki jullit yi ñu xam taxawaay bi ñu war a am euh, te lépp ñu war ko sukkandiku ci tënku ci ndigal yi ndigalu Cheikh Mamadou Muntaxa mi nga xam ne ci njaalbeen gi rek la joxe woon ndigal yooyu ñun ñëpp ñu maase ci tënku ci ndigalul sëriñ bi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa واكفي الوباء والبلايا كلها هلاوتي يسربها وأدلى واجعل حليفنا الحليما آمنا وكن بيديك في لندامنا واجعل خير من الجاهلين أسد وبها عن